sëriñ Amsatu moom sëriñ Sohayu yal na yàlla wéral ko guddal fanam ak ci liggéey maamam bi barkib xaside yi euh, sëriñ bi bokki addaayixul fadaahil ci njiital sëriñ Moodu Kéemaan Mbàkke moom si Abdullahi borom dër bi ak ci jëwriñ ji mu booleeg noonu ñu bokk moom liggéey bi muy sëriñ Mohamed Thiam ak mboole seen ñin bokk liggéey bi ak sëriñ Abdul Ahad Njaay mii sëriñ Moodu li amoon ci moom ci leen nu jotaloon mooy noo waroon a bokk ak moom jotaay bii waaye moom tuuti ngant moo ko teq ba yegg waaye mu xamal nañu ne lépp sëriñ bi mate na ko sëriñ bi bokki daayira bi am nañ ci mbégte lool ci sa teew gii am mbégte ci li jiitu woon teew bi ndax diirub liggéey bii nu ko sosee ba léegi noog sëriñ bi nu ànd lépp sëñ bi diñu ci dimbali diñu ci teete diñu ci sa ay bind ñi du ko takkaraar loole nag lu mboolem dayre bi yëg la góor ñi ak jigéen ñi ndax soxna daayira bi ñu ngi ci kees gi te it noo ñoom ñoo bokk aw doxin fas yéene dox ci ndigal sëriñ bi di jàng ci xaside yi lu ñu man lu ñu mënul ñu di ko yéene loolu rekk ay sunu doxin ba tax na ñun ñëpp ñu am mbégte lool tey jii nag ci jataay bi ñu bokk sëriñ bi mbégte moo xam ne ci njiital jëwriñ wax na ne jàpp na ne ci àdduna du am lu ko gën a rëy ndax xasida yi rekk ko ñor te ku ne xam ne doxinu sëriñ bi ci xasida yi rawat na itam sëriñ bi seq ay jéego jéego mi tedd yi ànd ko jëmm yu tedd yi nga xam ne ñooñ xasida lañ ñëw ci jataay bii bokk ak noonu kon Mbàkke bëgg nañ lool sa teewaay bi noo ngi ñaan ci barke Seexul Xadiim barke xasidaay mi tëdd yi yal na la yàlla dëgëral yàlla na nga tàmbali sa yeggale barke xasida yi yàlla nañ yàgg ànd ak yow jataay bii te luñ ci def sëñ tubaa gërëm ko barke xasida yi tuub nañ lool nag ci yëkkati gi ñu yëkkati tànk yi waaye nag euh, ñooñ sëriñ bi sëriñ bi rekk leen ñor euh, sëriñ Muntaxa Mbàkke al daf na waxoon nañu yéen a nekk ci li sëriñ bi bëgg takku na ci li sëriñ bi bëgg sëriñ bi gàttandu la te ku sëriñ bi gàttandu nga yegg kon Mbàkke yàlla na sëriñ bi dafa am gàttandu àggale nu fan bëgg àgg yépp te mooy liggéeyal ko ci xasida yi te dara bu ko ci moy te luñ ci defit yàlla na ko gërëm yàlla bu ci xaba dara Mbàkke bég nañ lool yàlla yàlla yàggal la dëgëral la ba li nga yéene ci xasida yi lépp nga def ko ah, li sëriñ bi waxoon ci xasida rek wansur ale barakatul fatiha wajal xilaami xayra babil fatiha yàlla nañ ci dajeeg bunt yooyee sëriñ bi dige barkeb jataay bu tedd bi mbàkki jërëjëf